mu nga benn ponk lay doon ñu fas yéene ci ànd ak Ablaye Bopp mu jukki leen li gën a fës ci bopp yéene kaay yu ñu xëyandoo tey jii Bopp Abdoulaye asalaamualeykum. maaleykum salaam El Hadji Mouhamadou bi tey. maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar. ñu ngi lay naka suba si. Euh, neexati na ci ndorteel semaine gi rawatina feggoog yow. alhamdulilahi rabil alamina ayca ñu tàmbale ko ak yéene kaay bi ñëpp di wër di njëkkalante ci kiosque yi muy Walf Fadjri quotidien. ma ngoog euh, yéene kaay bi di Walf quotidien mu ngi xëyee rapport yi nga xamante ne moo jógee ca cour des comptes ba ba léegi jiixi jaxa ga ci am Pastef kenn xamagul ban tànk la ci jiital ndax rapport yooyu la duñu mujjee eh, ca tiroir ya yéen cabinet eh, eh, wundu bokk na ci damboj xamle ne tey dañoo war a topp njiitu réew ma woon Sall ngir xool na mu yore woon réewum Sénégal bu ñu demee nag ba toppatuñu njiitu réew ma woon di Macky Sall bu yaboo nag ñu fab yooyu les rapports Cour des comptes ak yeneen ak yeneen dugal ko feneen foo xamante ne kenn dootu ko seenati Walf Quotidien ci jamono joo xamante ne Ousmane ko premier ministre ak njiitu mi Bassirou Diomaye Faye ma Macky Sall boobu ba léegi euh, mun a guñ koo diingat mu ngi ci yéen a kii Abidou Walf euh, quotidien ayca bu ñu jógee ci Walfadjri quotidien dañuy dem ci Dakar Times. Dakar Times euh, desandi ci ndakaaru ak Almadi 2 ma ñu ne lu toll ci ñetti téeméeri euh, terrain yoo xamante ne dañ ko faa jébbal Ousmane Sonko mu jox ko ay nattangom ya ca impôt euh, googule suuf ak terrain ana fu mu féete nan la demee moom la Dakar Times xëy duñu gëstul. ayca l'info yéene kaay moom. l'info Mouhamadou bi tey ma nga ca Sindia googu lépp commune ak coal suuf gafaam yéene kaay bi ne nag moo ca njëkk a lu toll ci téeméeri téeméeri hectare juróomi téeméeri hectare ak yu toftal moom la appoon ngir amal fa forêt classée waaye nag ci mujjantel ga dafa mujjee def ay pàkk eh, di ko jaay eh, ca Kignabur 1 boo foofee may sa déggen ngom homme d'affaires eh, juróom-ñeent fukki hectare la fa cëru bokk na ci Idi Thiam cëru fa lu toll ci juróom-ñaari hectare Jibril Mar jot fa cëru lu toll ci téeméeri hectare bokk na ci ca Kignabur 2 googule Charles jot na fa cëru am homme la goo xamante jot na fa lu toll ci ñaari téeméeri hectare bu dee ca Guéréo foofee lu ëpp ñeenti téeméeri hectare yoo xamante ne dañ koo jox ay promoteur hôtelier boo demee nag ca fi nga xamante ne ca ci Ñaabuur ak domaine bu Idrissa Seck bi nga ca Thiafoura domaine bu Idrissa Seck ma nga fa ñeent fukki hectare ak yu toftal Jibril Mar ak lañ fa fa jot apple ci itamit ay terrain yéen a cabinet foo nat coowal suus googee ca Sindiak Thiafoura foo ko natt ko mu ci yéen a kaab yi di euh, yéen a kaab nga xamante ne euh, mooy. Euh, l'info Abdoulaye mu mel ni nag mbiru suuf moom ci réew mi dañ koo def nag tong tong rek su ko defee saam ko daal kenn ku ci nekk jël wàllam ci naar wi. maam googu loolee tax coow li bari coow geneen sax la ñu fekk ca Prodac ma ñu ne mun nañu ubbiwaat googule dossier ngir mun caa leeral Cour de comptes mun na daanaka faram-fàccee googule dossier enseignant chercheur ci wàllu droit pénal nu Samba jot waxtaanee xam le ne am na anam yoo xamante ne. buñ ko ca toppee daanaka euh, ubbi tepp euh, googu le rapport cour des comptes mun nañ ko tegaat ci table ji Jean Pierre Senghor euh, mi njëkk a saytu Prodac jàpp ne mu ngi xaar ñu wóolu ko ngir mu indi leeral yoo xamante ne na Prodac doon doxee ak coow la ñu ne am na ca ci wàllu jalgateeg yeneen ak yeneen. loolu yéen kaayu Sud moo ko fasal. ma ngoog ay ca ñu ñëw ci yor-yor. mu ngi ñuy Dakar Plateau maire di ki nga xamante mooy Alioune Ndoye diggante 2016 yorin gàkk euh, rawatina ci wàllu jëwriñ gu ñu dénkoon wàllu napp mi lam ca euh, doxal te awut ci yoon ci atum 2023 yéen cabinet cour des comptes xëy na ko ne fang ci mbedd mi ngir ñu xool jalgati gàkk euh, luubal ya 24 heures chrono 24 heures ne moom Alioune Ndoye maire bu Dakar Plateau bokk na ci jiite woon fii napp mi ci jamono yéen cabinet moo ne de am na fi ay vedette yoo xamante ne jotoon na ko fee commandé njëg maak doon lu jaaxal ñu bari nag ak vedette yooyu nga xamante ne daanaka jotoona déggandeek mbir ya fu mu mujjee neexul Cour des comptes mujjee na ci indi euh, leeral Boubacar Camara doonoon candidat ci élection présidentielle ñu euh, joge xam le ne tamit li euh, woneegum ci nguuruk Bassirou Diomaye fay mun nañ jàpp ne changement mun nañ ko ca séntu ci lu yàggatul tàmm laago la 24 heures chrono bi ma tàmm moo tax ma naan la 24 heures waaye nag euh, maa ngi cay jéggalu. ay ca ñu dem ci bés bi. bés bi mu ngi ñuy dégtal euh, ministère de la pêche ak rapport ya fa jot a tukkee yéen cabinet euh, chef de division de la pêche daanaka ay at ngi nii ñaari at maga nga woon ca bitim réew te moo ne de ma nga doon fayeku saay bu weer dee woon bokk na ci cour de comptes nag jot na indi ay leeral sàkku ci direction de la solde ñu indi leeral ci yooyu les yu dëppoo ak yoon koo xamante ne ma nga ca defatul lenn ci réewum Sénégal te eh, saay bu weer jotee mu tàllal loxo Euh, ñu fay ko ci anam yu dëppoowul ak yoon. ñu ñëw ci las yéene kaay. CAPS di ab kuréel goo xam ne moo boot ñu yëngu ci wàllu napp gi bëgg nañu euh, gunge nguuru ko ja Bassirou Diomaye Faye ci ñu indi leeral euh, ci jafe-jafe napp mi ci Sénégal licence de pêche ak accord de pêche yi nañ ko teg ci taabal ji waxtaane ko lu luñ ci bëgg a xam ne daañ leen ko ca leeralal mu ngi ci yéene kaay bi di las. critique yéene dund gi wàññeeku gàncax séntu dara leeragu ca ak diggé yoo xamante ne nguuru Bassirou Diomaye Faye mu ngi koy amal ba ba léegi ñoo deltu ginnaaw ci marché bi mu ngi ci yéen kabi di eh, critique ñu dem ci l'évidence eh, ganaaw fukki weer ak juróom ñett yamu ay AIBD moom Abdoulaye Dieye ma ngay amal bilan goo xamante ne def na ko ca eh, ca ay AIBD mu ngi ci yéen kabi di l'évidence direct ci wàllu collectivité territoriale yi gox yeeg goxaat yi bopp moomel yi jafe-jafe ga ñuy dund ba tax na téeméeri waxtu ko ñaar fukk euh, soobuwaat nañ ñu ci grève wu ñaxtu euh, ngir dànkafu jor gi ñu denk euh, wàllu googee ma ñu ne def leen a xupp ci jamono ji ba tax na xel xalaatul ñu deltu ginnaaw jot nañoo sax da dànkafu Moussa Balla Fofana ci biir yéen kabi di direct news. source a source a ne njombe kawteef moo am ca direction bu ONAS ba Mamour jàlloo jiite woon yéen cabinet dafa beral loxo liggéeykat ya daanaka boo ca doon takk soxna wala ñu lay takk dañ la jox jox mbakuus gu toll ci euh, cent cinquante mille francs Euh, booy am doom di ngénte dañ la jox cent cinquante mille francs ca liggéeykat ya bokk na ci yemuñ ca euh, bu fekkee ne tamit euh, da nga am ku gaañu dañ la jox lu toll ci juróomi téeméer ci ay tamit ay daanaka kopparu Sénégal bokk na ci tamit ñoo xamante ne mbaxus geneen képp koo xamante ne am nga soxla gu jàmp ñu taxawu la yéen cabinet mbaxus ga foo ko natt weesu na ko billet d'avion yeeg yeneen ak yeneen noonee la Mamadou Mamour Diallo doon doxale ca ONAS ga mu jiite jiite yéen cabinet foo ko natt nag euh, ci euh, euh, doxalin weesu na ko ba tax na patas gu tàng jër la bàyyil Cheikh Dieng a ko fa wutu mu ngi ci yéen cabinet bi di source a doy na waar kay ndax la source a titre ah. dafa kéemaane gattari triple XL loolu moom yàq ñu ñëw ci yéen kaay yu ma jàmbal bitim réew ban projet diplomatique la ñu fas yéene taxawal nguurug Bassirou Diomaye fay ma ngi cay liggéey bokk na ci Yacine fal di jor gi ñu denk wàllu bitim réew jotoon ci amal lël gu yaatu ngir xool yan matuwaay la ci eh, nguru Sénégal di jël ba itamit lépp lu jëm ci wàllu diplomatie eh, gàllankoor du ca am. le mandat le mandat li am ci wàllu wàllub eh, wutum visa ci ndakaaru doon lu jafe lool bokk na ci kan la ambassadeur ak consultant yu européen di may jàmm doomu Sénégal ndax bëgg a dem ca bitim réew doon na lu jafe lool mu ngi ci yenn kaab yi di la mandat ci xëtam bu njëkk. ñuy ñëw ci euh, turbine yéen kaay. Euh, turbine mu ngi ñuy degtal njiit réew ma woon euh, Macky Sall daanaka mu ngi woon ginnaaw Amadou Ba daa mel ni faxasu na ci Amadou Ba mi doonoon candidat am ci élection présidentielle ñu jógee daanaka beralal na loxo nag Abdoulaye Daouda Diallo mi mu jàpp ne xëy na moo war a jiite. APR jiite tamit coalition Benno ci élection euh, yi ñu jëm yéen cabinet tey Amadou Ba bi samp mooy ndax day wéy di langaamu ci njiitu réew mi Macky sal wala bëgg day ber yoonu boppam demal boppam mu ngi ci yéen cabinet di euh, turbine. wolof nee na lëngoo neex na waaye ko bàyyi mu dem ak mbaggam. réew mi quotidien euh, ci réew mi quotidien ne mbégte tàmbali naa gane si ndax ab bato goo xamante ne jëm na ci waxu Sénégal diggante mag Mauritanie jëm ci wàllu pétrole ak gaz yéen cabinet la yéen tegtal beneen itamit jéego geneen diggante Rwanda bu Paul Kagame ak njiitu réew mi euh, Bassirou Diomaye Faye jot nañoo feggoo waxtaan démb sax ña nga woon ca fi nga xamante ne euh, mooy ca arena foofee ca Diamniadio ngir seetaan fa wàllu basket euh, nga xamante ne AS Douane moo jël ndam la ci kaw ab club yéen bi ne ci jamono jooje daanaka ñu ngi leen doon séntu ci te jalu euh, final euh, coupe euh, maanaam chef de l'état ci wàllu lamb Walf Quotidien moom la xëyee ne waa axlu lamb kontaan nañu benn yoon ci nguurug Bassirou Diomaye Faye ndax dañoo faf du lamb ji démb ñu bari ñu ngi leen fa doon séntu ca stade Caroline Faye ñu mujjee nag teeri ji ca foofee ca Arena Tour fësal basket bi bàyyi lamb ji ba tax na waa axlu lamb ne fañ leen doon séntu gisaguñ leen fa no comment la ko indi moom ken xamu ko waaye no comment. ah yéen a fu ñu jeexalee tënk la woon ci xeetu yéen a